pas des détenus politiques. Mm ñi ngeen wax détenus politiques amul benn concession qui a été faite. je suis le principe taxaw bi nga taxawee da nga ne Ousmane Sonko dafa war a bokk. ci élection bi absolument et vous n'avez pas de concession sur ça. Euh, absolument c'est la vérité gum parce que dama bëgg wax sànq xam nga dama wax ne y a deux choses yi nga fàttaliku ni amaguñ ci accord parce que ñun bi ñuy demander élection inclusive dañu viser quatre articles du code. benn bi mooy article 57 article 57 mooy modification wu 2018 fi ñu doon waxee tout sénégalais mën na bindu mu yokk ca électeur 57 boobu moom moo moom ngay tirer conséquence ci 28 29 30. 30 parce que ba tant que c'était tout sénégalais c'est pas un problème mais su fekkee électeur la day am tout de suite léegi ci lu mu lonk du dëgg. boobu la ñu wax ni nañ ko dindi y' a pas eu d' accord mi ngi bokk ci question yi nga xam ne comité suivi wax na ko waxtaane un deux ñu ni deuxième problème bi mooy li indi problème wu ba léegi élection non inclusive mooy que ni la déchéance la déchéance ou la perte des droits civiques doit relever désormais exclusivement d'une décision de justice wax nga dëgg y' pas eu d' accord parce que loolu ça war a régler aussi un problème parce que dans tous les pays du monde la déchéance est une peine la déchéance est une peine l'amende est une peine et, et la prison est une pen ñetti peine yii la d'ailleurs sànq yaa ngi ni dañ ma amende un milliard huit cent non non cinq millions lañ ma amende te état bi ameel na ma trente cinq millions. fayuloo non ñoom fay ñu ma sama trente cinq millions. <laughs> état bi ameel na ma trente cinq millions yu ma aw alloué. voilà mais dama bëgg wax ne ñetti point yooyu moo amoon solo léegi dañ ne pour éviter que loolu di fi amaat que dans le code pénal et dans le code électoral comme ça a été fait en France ou dans beaucoup de pays démocratiques ou à consolidée la déchéance est une peine elle doit être par le juge su ko juge bi waxul mënul warul mën ne parce que pour le cas Karim Wade. a refusé a pas, mais bien sûr bien sûr pourtant après modifié nañ. loolu laa euh, code électoral oui moom laa la wax. c'est-à-dire bi mu dalee Karim Wade ñun ñaan juge bi juge bi bañ lañ modifié code bi L57 dama bëgg a xam xam nga fii dara beesu fi dara beesu fi ji nga lii ñuy dund fii dans ce pays Karim l'a vécu je l'ai vécu les mêmes méthodes les mêmes moyens qui sont utilisés pour neutraliser mais, mais, mais, les situations électorales